AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV waxu rahimun qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu al uqad wa shalhu dakiran wa shakiran abada waccal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyahab bil mustafa xayra shayam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki daara ji waa bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di beral nu yoog siyaar waa daaray xikmatul yawmi xaaju benn ak ñaar ak ñett ak ñeent ak juróom ak jëpp daara ji jot bi fas yéene di ko yéen ci seen xikmatul yawmi mi ñu leen baaxoo andil bis mu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak taw tawfiixam seen mbokk Saliou Sy di leen ko defal ñoo ngi leen di joxe xikma bi fii ci daaray xikmatul yawmi ngir yare ak jàngale ci lislaam eh, te ñu tuddee ko Cheikh Mouhamadul Mourtada mu nekk fii ci Thiès site ouvrier parcelle numéro 31 téléphone 77 712 44 71 wala 77 633 77 56 ci ñi bëgg a bind seeni doom wala ñu bëgg ay leeral ci daara ji ndax tàmbali na te ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci kenn ci mag ñi àndoon nag sëriñ tubaa ñu koy wax sëriñ Malick Bassine si te mu ko doon dénk ak njabootam waaye nag jullit ñëpp mën nañ koo jëriñoo rawatina taalibe yi Serigne Malick Bassine Sy dafa mas a woo ba ñëpp daje mën a leen. maa ngi leen di dénk ñetti yi na ngeen nangoo liggéey te nangoo jaamu yàlla te am kilifa dal ne bu ngeen ko defee de doo ngeen dem fenn naan musalma mbaa mosalma képp ku nangoo liggéey danga am sutura sa àdduna ku nangoo jaamu yàlla ëllëg danga am taraangay àllaaxira ku nangoo am kilifa itam daga nga mucc àdduna ak àllaaxira loolu nag Serigne Touba sunu yaakaar soññe na ci ba tàyyi ndax bu dee liggéey nee na wajtahidu fi talabil xalaali faxwal muqarribu lisil jalaali na ngeen nangoo farlu ci sàkkulu leew ndax dafa leen di jegeeloo seen borom wa talabul xalaali fardun tamit li kulli muslimin bi xayri wahami sàkkulu leew kat muy liggéey farata ci bépp jullit bu dee jaamu yàlla wax na ci lu baree baree bare bare nee na ki nga xam ne nii kat dafa yaakaar ëllëg àjjana te nanguwula jaamu yàlla ab dof la safiha man yatlabu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala nangoo am kilifa it wax na ci lu bari moom Cheikh al Xadim naan képp koo xam ne ni amut kilifa gu koy gindikat saytaane mooy kilifaam fa kullu man lam yaxwi cheikhan murshida fa cheikhuhu cheytaan aysu qasada kon nañ farlu ci yooyu sëriñ Malick Bassine daal cay teg ne ñëw leen ma wax leen ku am kilifa ak ku ñàkk kilifa la leen wutale mu ne kilifa mi ngi mel ni ab sàmm euh, njaboot mi ngi mel ni ak jur nee na ab sàmm bu xëyee des na dajale jur gépp jox ko mu mu leen di sàmm fexe ba duñu xiif duñ mbar waaye neen na nag bu ngoonee bu ñëwee kenn ku nekk dana dajale ak juram daal leen di tëj ci ab géddam nee na ki ñàkk kilifa nag moom day dajeeg jur ga ca àll ba di leen wettali ko bu ñu wàccee ba ñëwit bañ tëj leen ci seenub gédd guddi mu tëdd ci gannaaw gédd ba di leen wettali ko nee na bu gaynde jógee guddi wala bukki moom rek lay fàdd ndax ndax ña ci des seeni borom tëj nañ leen ci seeni gédd moo tax sëñ bay jaxate di misaal ne eh, xam ngeen la tax rëbb baa jóg romb bay wa di gis rab ba daal di fetal am sàmm gaa ko waral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 kon nag buñ nax suñ bopp benn yoon nañ seet fa nga xam ne nii kat mooy ngir ma ñu jaar fa te bañ a naxanteeg sunuy xel ñoo ngi santaat mbokki taalibe yëpp mbokki jullit yëpp di leen ñaat ci e, ñuy jàppale waa daara Hikmatul mi ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir te ñu am ci ndigalul Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fa yàgg loolu te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 in uridu illa al islaah ma stataxta ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh